simile Malick Noël Seck génnee nañ ko ca kaso ba tribune yéen e kaay ne ma jambal jaañ a tax ah waaw waaw ma jambal jaañ ci tribune yéen e kaay ne ëttu àttekat yi wa mu jëlee kon ab dogal ne day daan kon Malick Noël Seck daan goo gee ca laa xam ne lii du yoon benn ñaar metti na ma jël kon sama xalima daal di kon bind lettre président de la république maître Abdoulaye Wade xamal ko carrément ne ko na jéggal gone gi lee moom président tam fukki fan ak benn ci weeru janvier mu daal di may bind ab lettre xamal ma carrément ne ma kon bind naa ab décret danaa baal kon xale bii di Malick Noël Seck yow ca jamono joo xam ne kon Malick Noël Seck génn na ca kaso ba waaw la fi seeni kaay ne Ousmane Tanor Dieng sàkku nañu génnee Barthélémy Dias mi ci kaso bi lu tax njiital parti socialiste ne parce que Barthélémy Dias mi dañ koo war a génnee ci kaso bi même bu dee sax après dañ koy teg kon ab gët dégg nga parce que Barthélémy Dias mi le maire la ñëpp a ko xam nekkul ne day daw déedéet place am kon du kaso ba le pays au quotidien ne Malick Noël Seck ne même bu dee kon génnee nañ ko ci kaso ba waaw nee na candidature Abdoulaye Wade gii baaxul tey te baaxul ëllëg ma ngi ko xamlee ca émission bii di objection ca Sud FM waaw Malick Noël Seck ne saay bu conseil constitutionnel dëgg da candidature Abdoulaye Wade gile Abdoulaye dana gagné waaw ba pare nag danañu buux kon doomam ji di Karim Wade ya te bu boobaa danañu génn kon ci mbedd mi defante ba mu très bien parce que candidature Abdoulaye Wade gile dara kon baaxu ca waa candidature Youssou Ndour gi est-ce que baax na Souleymane Ndéné Ndiaye ci laas ne Youssou Ndour juum na waaw nañ ko wax dëgg il s'est trompé complètement Youssou Ndour mi xaw ma kan moo ko dugal ci ëttu politique gile waaye juum na juum na Souleymane Ndéné Ndiaye ne mais nekkul ne yow da ngay siiw rek wala da ngaa mën ab musique rek nga ne damaa bëgg a jiite réew mi naan sénégalais yi nañ ma votel non non non premier ministre ministre ba ne li xew ci yeneeni réew du xew ci Sénégal gii il faut muy leer te candidature Youssou Ndour bi mais ay caaxaan la quoi ay caaxaan la man Souleymane Ndéné Ndiaye maa ko wax la candidature de Youssou Ndour n'est pas sérieuse xam nga ab réew ngir nga jëfe ko wala jiite ko il faut nga xam ko Youssou Ndour laa ne amul benn sens pour jiite réew mi le te man su ma ko doon xelal la ma koy xelal mooy na dem continuer jagleele boppam wàllu musique bële dégg nga cëru Youssou Ndour du jiite Youssou Ndour du kuy jiite Youssou Ndour cëram mooy dem di way sa mission du diriger mais c'est de chanter Souleymane Ndéné Ndiaye ci laas yemu ca parce que nee na moom Youssou Ndour bii moo ne woon jàngul Youssou Ndour moo ne woon jàngul xamul dara kon mënta jiite réew un chanteur dirigé le Sénégal cela ne se réalisera pas waaye Souleymane Ndéné Ndiaye ne ab woykat jiite réew waaye xam ngeen ne loolu mënta nekk waaye laas ne moom Souleymane Ndéné Ndiaye moom mais ci télé wu Youssou Ndour ba di TFM la ko xamle télé boo bee Cheikh Amar xaalis sama nga fa tribune yéene kay ne Abdoulaye Wade dee mujj naa sàkku ci Cheikh Amar mi le ne ko sama diggante ak Youssou Ndour il faut nga tànn ca yéene kay gi ne te xam ngeen ne Cheikh Amar mi waaw alalam ji Abdoulaye Wade la maa la wax lii Cheikh Amar tam tànn na nee na kon tànn naa kii di président Abdoulaye Wade laa ilaha illallah tribune yéene kay ne doon nañ leen ko wax de nañu nekk ca palais ba dafa ko yee dañ doon yëy kon kii di nopp Abdoulaye Wade bi Abdoulaye jàpp ne Youssou Ndour mi le da koy xaxar suba ngoon gu dégg ba cag Souleymane Ndéné Ndiaye ci laas ne li ma leen wax du dañ Youssou Ndour cëram du jiite way la libération yéene kay ne Karim Wade day fi mu nekk nii daa fas yéene sullil ay mbóot Youssou Ndour ba maar day taali aha maa la wax lii xam ngeen journalam bi nga xam ne kon génnee na ko di le pays au quotidien waaw ak sitam bi di la sénégalais point net waaw Cheikh Diallo moo ko jiite ci njàppandalug maître Mamadou Diop mi nga xam ne moo nekkoon loxo ndeyjooru Youssou Ndour lay lay la laaw waa kër Karim Wade yi génnee nañ beneen journal Dakar match la tudd Basir Diop a ko jiite yéene kaay gi ne te nag attention jot nañ ci weewu béy ne journal bu bees boo bee Karim Wade moom waaw fas yéene naa génnee kon ab xabaar boo xam ne ku ko liir maar deytaal yàlla boo xam la ilaha illallah ca in ba ca in ba ca kanamu journal ba photo Karim Wade ak Youssou Ndour ñoo ca ne ñoom ñaar ña ngay dox lan leen titré le grand deal du 26 février deal la de deal lañ doon dox de ah loolee nag boo sàgganee kon Karim Wade mii dana ca sulil mbóot Youssou Ndour yéene kaay yaa xam mbay gi ne ma ni boo sàgganee laa lay wax nii réew mi ci fan yii di ñëw nii dana kalaate kalaate gis nga journal Youssou Ndour bee ak télé bi ak rajo bi bu ñu dof dof loo ba naan dañuy jéem a kon tontu Karim Wade mi le laa ilaha illallah oh danañ leen génneel ay mbóot yoo xam ne marte tali marte tali tribune yéene kaay ne te kër Youssou Ndour gii di fitre média suñ dëkkandooy waaw ñi ngi waajal lu rëy assemblée générale la ci alxamis gi ngir lan xanaa naqarlu Youssou Ndour ak ñi nga xam ne kon mi ngi leen di jël ca télé ba di leen fay loola ak loola te ñoom ñii lu ne daj nañu ko te ba nii ñuy addoo France daal di xideen torox ba ni tott lañu def ëtt politique ga toj na le populaire ne guerre bi dox kon ci diggante Abdoulaye Wade ak Moustapha Niass mi waaw benn fàqmaan boo xam ne daal ab transhumant la fu tooy mu tag la El Hadji Ndiouga Dieng la waaw premier adjoint maire ca Mbour gële moom daal jóge na AFP juróom benn fan ci weeru janvier dem kon PDS juróom benn fan la ñu ca teg mu delluwaat kon ca kër Moustapha Niass ñu tegati ca ñaari fan delluwaat na kon ca Abdoulaye Wade le point du jour ne li ma waxtu dañ ëtt politique ba yëngu na maître El Hadji Amadou Sall ne opposition bee war a fekk si Abdoulaye Wade mi le bàcc li ne ko fekk si yéen fukki at ak benn ngi nii ngeen ne fi Dieng moo leen woo kenn naan ay gouvernement union nationale fu ñu jëm ah l'office yéene kaay ne xoolal ma maître Mbaye Jacques Diop waaw réccu na bu baax lu mu doon seeyalee kon parteem bi ci biir PDS maître Mbaye Jacques Diop ne bu tey doon démb dey duñu ko def ah parce que PPC moo ëpp doole fuuf yeneen parti yi nga xam ne kon ñu ngi gunge Abdoulaye Wade te xoolal waa PPC ni ñu leen def faale wuñu leen kon kippe wuñu leen maître Mbaye Jacques Diop ne président honoraire conseil économique et social waaw parti yi nga xam ne kon ñooy jàppale Abdoulaye Wade xoolal ci ministère yi assemblée nationale sénat ba ci ambassade yi ñi ngi jël seeni militant ñu fay liggéey waa PPC faale wuñu leen kippe wuñu leen ñu ànd ak Abdoulaye Balde fipp nañu laas ne Abdoulaye Balde moom mais xamal na kon ay naataangoom wala boog ay parandoom ne leen continuer leen xeex bi continuer leen di ma wóolu lii di ka gën a neex oh lay lay lala le populaire ne ay waaye Assane Diagne Assane Diagne si Cap Wade waaw bu yeboo ñu surveiller ko de ah ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier dina def kon ab déclaration wu rëy rëy professeur Abdoulaye Bathily déclaration bi rëy na ci le populaire ne Abdoulaye Wade mi bu yeboo ñu koy bàyyi xel de parce que capable na lu ne juróomi àttekat yi nga xam ne ñoo nekk te conseil constitutionnel gaye seen fit yaa ngi pat patee ka tartari lu tax professeur Abdoulaye Bathily ne 1993 Abdoulaye Wade bi mu taxawee ne dee tëkk-tëkkal ne dana jël kon nguur gi li mu def ñëpp xam nañ ko daa santaane kon ñu rey ab juge laa ilaha illallah maître Babacar Seye yi la ilaha illallah laa ilaha illallah ah du samay kàddu de du samay kàddu de professeur Abdoulaye Bathily mooy wax de njiital jàllar bi si ne maître Babacar Seye laa ni Abdoulaye Wade mii moo santaane ñu rey ko parce que Abdoulaye Wade la mu def après kon wane na ko ña nga xam ne ñooy reykatu nit ya di assassin ya dalee na baal moom Abdoulaye Wade yemu ca ndàmp leen yemu ca ne bu ci kenn kon waxati yemu ca demate kon te njabootug ñi nga xam ne kon ñoo loru le yëkkati lu ci tolloog juróom benn téeméer ci ay millions six cent millions di leen ko gere man professeur Abdoulaye Bathily maa ko wax ci populaire waaw waaw Bathily ne bu dee Abdoulaye Wade nag jamono ja mu nekkee kon ca opposition ba ca la capable di rey kon ab attakat wu nekk ca conseil constitutionnel waxoontuma laa tey bu ñëwee kon ba yorub nguur mën na lu ne du ma ca yàgg dem naa ca football ba tribune yéene kay ne gaynde Sénégal yii ah xel tey na ci ñoom de gañe nañ da waaye gañe gii dem naa ca làmb ja le too yéene kay ne ay diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène ay waay kan mooy daan waay kan mooy mujjee reetaan gi le xaxataay gi le ngemb yéene kaay ne ma ne diggante Gris Bordeaux ak Modou Lô waaw li bloqué mbir mi kay ndekete mi ngi nii Ablaye Mbeng mi agent wu Gris Bordeaux ci suñu làmb ne dara bloqué wu ko lu dul Modou Lô combat bi bu tardé ci Modou Lô la Ababacar Mbaye moom Modou xarañ Lô maa la wax lii ci moom la tardé te fi mu ne nii boo ko fi waxee dara tey ba mbambaleeg coow li toppati la la ilaha illallah xabaaru tribune bee ma def ay reetaan quoi Youssou Ndour am ay jafe-jafe ngir tànn ay nit ñi koy liggéeyal bëgg laaj réew mi waay yow xanaa bu boobaa ñu xalaat ne rek xëj na Mbaye Dieye Faye ak ni mu xarañee dina ko def ministre waaw waaw semaine bu ne ñu génnee benn fecc bu bees cay fu réew mi jëm laa ilaha illallah c'est que gis nga man mi ay dara karara pourtant gis nga man nag ay dara karara mënoon naa essayer rek samp sama ndënd billahi déclarer sama candidature jéem a laaj réew mi mais pourquoi pas xool ñiy def revue de presse Ndeye Marème Ndiaye su defee ministre de la femme laa koy def Lamine Samba déedéet kooku dem na Ndeye Fatou Ndiaye Walfadjri ma def ko ministre de la justice xëcc Pape Alé Niang def ko ministre de l'intérieur xëcc Omar Gueye oxygène def ko sama premier ministre Alaaji Assane Gueye RFM garde du corps barke Rasulaay Alaaji Mansour yaa ngi njaay doos wax leen ma ban poste ngeen bëgg ma teg leen fa wax ji lañ war a baax lambi leneen